def conférence de presse ab vidéo compilation le bi daal di teg maanaam ay déclaration yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko defoon di ci yëefin na loolu le procureur bi wax ndax nee na Ousmane Sonko dafa yàgg def ay déclaration yoo xam ne appel à l'insurrection la maanaam déclaration yoo xam ne Ousmane Sonko daf ci doon woote fitna moom procureur nee na jàpp gi nga xam ne jàpp nañu ko Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum sàcc téléphone loolee rek maanaam daf koo sooke waaye nag Ousmane Sonko bëggoon nañu koo teg loxo far nag mu daal di sàcc ab portable mbir nag daal di fay ba tey ci biir journal bi moom procureur leneen lu jëm ci wàllu mortal combat ñëpp dégg nañu Ousmane Sonko wax ko ci réew mi appel à lu jëm ci wàllum woote fitna résistance ak tous les moyens confrontation yokk sa lu jëm ci wàllum gatsa gatsa ak nag police yi nga xam ne Ousmane Sonko ma ngi leen di songo institution yi di song lu jëm ci wàllum justice bi Ousmane Sonko ne fekk ma Ndakaaru cooki fin laas yéene kaay na procureur yóbbu na Ousmane Sonko kaso dara xewagul réew la sûreté doxal si réew mi association de malfaiteurs la nguur di def ay ñaawteef ak lu jëm ci wàllum terrorisme lu jëm ci wàllum crime sax bokk na ci li xam ne procureur bi tuumaal na ko Ousmane Sonko yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na lundi de tous les tey jii maanaam journal bi nee na boo muy dina doy waar ci réew mi bi nee na diwaanu Ziguinchor foofee nag jamono ji gars yi ñoo ngi bu baax a baax Ousmane Sonko daat nay door li nga xam ne mooy gerewu xiifal ba moo këpp ci kawam mortal combat bokk na ci li sànq lu jëm ci wàllum force spéciale ak cocktail molotov yi ak wàllum combat fin yéenekaay gi di réew mi ko ko ko loolee nekkul mbetteel dem na sax bay menacer njiitu réew mi naan daf bëgg a faat loolee kàddu Seydou la ma ngi ci réew mi quotidien yéenekaay gi di laas xëy di ñu xibaar naan ñu jege ñaale Ousmane Sonko yi dañoo bëggoon a amal ay manifestation ca diwaanu màggalu Touba waaye nag ñi nga xam ne ñooy Baye Fall yi ñoo ko gàntal la yéen kaay gi di Vox Populi xëy xibara naan ñu Pape Alé Niang teg nañu ko loxo tey jii la ñu koy defeere Toussaint Manga tey jii la ñu ko convoqué maître Ngagne Demba Touré gars yi ñoo koy wër jamono ji Pape Alé Niang commencé na ab xiifala maanaam grève de la faim yéen kaay gi di Le Quotidien yor yora nee na yokk ci Cheikh Bara Ndiaye moom tim jamono ji su mun a gerewub xiifala yéen kaay gi nee na ay manifestation nekk yéenekaay gi di évidence nee na face à face diggante Ousmane Sonko ak Maham Diallo ñaar ñoo xam ne ñaar ñu xamante lañ yéenekaay ne jàpp ko Ousmane Sonko laalewul dara ak mbiri Adji Sarr ñaari at yi nga xam ne tëj nañu ko Ousmane Sonko ci mbiri Adji Sarr loolee màbbul loolee jeexul ndax lu jëm ci wàllum contumace bi ba léegi ma ngi fii lii beneen dossier la loolee procureur moo ko wax ba ci biir journal bi di Sud ko fa mu mel ne luy jàngal droit procureur bi ne Ousmane Sonko ak dossier bu ñu ko mën di toppewaat ginnaaw tëjoon nañu ko ci lu jëm ci wàllum contumace ne gisuñu ko kon nag bu ñu demee ba teg ko loxo mbooleem loo xam ne tëjoon nañ ko ko ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr loolee jeex na loole sey na ma ne la attewaat Ousmane Sonko rek moo fi sës ci lu jëm ci diggante mag Adji sara ndax bis ba ñu ko jàppee la lépp jeex ba tey ci biir journal bi avocat yi Ousmane Sonko yi démonté pièce par pièce li nga xam ne moom la procureur bi wax ndax ñoom nee nañu li nga xam ne mooy dëgg Ousmane Sonko bi ñu ko jàppee la atte bi ñu ko atte woon ci mbiri Adji Sarr ak daan yañ ko daanoon daal di a maître ma soxna kan moom nee na procureur bi ab tëyër la ñu ne ko tëyërub lan mu ne tëyër broderie yéene kaay gi de enquête xëy di ñu xibaar naan yi Ousmane Sonko yi ñoom nag nee nañu maanaam ak ak yelleefu seenub client dañu koo ñu xibaar naan ñu Juan Branco ñëw na ci mi Juan Branco mi nga xam ne moom la ñu defoon ab mandat d'arrêt waa Juan Branco moom fan la jaara Juan Branco démb ca conférence de presse bi nga xam ne avocat yi Ousmane Sonko yi doon nañu ko amala ba pare nag dama leen di wan na leen man du ma ab ragal yéene kaay gi de la sa xibaar naan ñu wax Juan Branco moom nan la def ba dugg ci réew mi moom Juan Branco journal bi nee na lii nag ay faay la yu doy waar ci nga xam ne moo jëm ci wàllum renseignement ndax nag seetaan nañ ba Juan Branco dugg ci mi te kenn yëgu ko loole nag ay faay la ci lu jëm ci wàllum renseignement yéene kaay gi di vox populi xëy dañu xibaar naan ñu na la Gambie la xibaar naan ñu bëri na yoo xam ne jamono ji ñoo ngi leen mën na la Juan les ko xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko benn tànkam mang ca kasu ba Ousmane Sonko benn tànkam mang ca kasu ba yéen kaay gi de la turbina bugaan gi dani nee na jamono ji gars yi dañoo bëgg a éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 ndax nag tuuma yi nga xam ne moom la ñu gàll ci ndodam loolee du tus du lenn la moom bugaan gi dani yéen kaay gi de l'info xëy dañu xibaar naan ñu procureur bi nag moom nee na ñoom Ousmane Sonko nee naa Ousmane Sonko téléphone bi nga xam ne moom la ñuy wax sax Ousmane Sonko jëlu ko mën na la gis nga ñi ko jël Ousmane Sonko da na a bëggoon a protéger moo tax nag moom mu taxaw ne moom la yéen i gi ñu xëy fekk fa Moustapha Guirassy nee na nag nous vivons une catastrophe démocratique yéen i kaay gi délibération nee na procureur sàkku na mandat dépôt ngir ñu def ko Ousmane Sonko yéen i kaay gi nee na bëri na ñoo xam ne jamono ji teg nañu leen loxo ñi nga xam na ñooy waa bib bib bib démb dañoo demoon ci di kër góor gi ci kër Ousmane Sonko bi ñu sonee yàgg yàgg yàgg kenn ubbiwul ñu dajji buntu am na ñoo xam ne teg nañ leen fa loxo journal bi nee na ngañ demb Touré bu Pastef moom nag dafa lànk ba tëdd sa naaj wa nee na du wuy ji ñi nga xam ne ñooy waa dikka yéen kaay gi di wal fajiri xëy ñu xibaar naan ñu accusation tuuma yi nga xam ne moom la ñu gàll ci ndoddal Ousmane Sonko boo si boolee militant yi nga xamante ni jamono ji teg nañu leen loxo ba dugal leen ci kasu bi mën na la gis nga bis bu ngeen xëyee ñu ne leen tas nañu parti bii di Pastef bu mu leen bett yéen kaay gi nag nee na tey ji lundi la joo xam ne altine ju doywaar la kaay gi dali ko di jeexee duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ji nag mbir maa ngi gën di compliqué ci Ousmane Sonko yéen kaay gi du l'observateur xëy diñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ak Maham Diallo doyen des juges ñoom ñaar tey ji danañu jàkkaarloo waat yéen kaay gi di Rewmi Quotidien bureau politique bu parti a ñoom nag jamono ji résistance la ñu woote Mamadou Ndoye mi nga xam ne jamono moo fi nekkoon secrétaire général bu LD moom nag nee na communiqué bi nga xam ne procureur génn na ko loolee dafa ñàkkal fayda justice bi yéen kaay gi di Le Quotidien yor yora ñu xëy fekk fa Diagne candidature bi ginnaaw bi ñu barricadé kër Ousmane Sonko dara xewu la maanaam ñu tere leen lu jëm ci wàllum investiture seenu candidat ñoom tim ñu teg ci suuf dara xewu la maanaam ñu yokk si nag jàpp Ousmane Sonko gis ngeen ñii xam ngeen lan lañ bëggam maanaam réew mi yëngu pëccëxoo kaawa am ci réew mi Macky Sall toogaat ci réew mi yéene kaay gii di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu jàppante mënut a ñàkk diggante écurie Fass ak xam ne waa CNG lañu ndax nag déggoo ba léegi amagul bi nga xam ne ci la a